maire tubaa am jataay bu am solo tey jii ngir fas yéene waxtaan lu jëm ci wàllum nawet bi nga xamante ne mi ngi jege si ngir nag sàmm sàmmonte ak wàllu jafe-jafe wàllu inondation bi loolu tax nag kii di Serigne Cheikh Abdou Moussa Ndam Atta jiite wàllu commission assainissement fekk ak Serigne Moustapha Moussa woote jataay boo xamante ne Touba ci kanam ak muy liggéey bu am solo boo xam ne ministre bi kan moo ko sàkku woon ngir ñu xool yenn yi nga xamante ne ay koo saafara Serigne Cheikh Abdou Moussa Ndam Atta dikkaat na ci yenn barab yi nga xamante ne gis nañ ne instant wañ cee taxaw ci nu mu gën cité nañ buntu buntu mairie bi fii fekkoon na mairie am na ci mi ngi ci jéem a wut pexe waaye nag état moo ëpp moo ëpp doole mairie te sax du du mbirum mairie xëy na loo xam ne dañ koo sase mu def waaye da ciy jéem ndax mënatu koo seetaan loolu la euh, waaye kon loolu mooy doon tàmbali bi ak point yu ni mel nit ki buntu jànnatu maxwaa ci jumaa yi sañ si axom sañ saaliw ak yoonu guy yu sew wii nga xam ne moo wàccee Touba Ndiarème escadron waaw jumaa yi sëñ Saliou laa euh, yoonu escadron bi nga xam ne moo duggee tali daguwaa ngaabu yi jëm si nii nga xam ne lu ëpp ci mbooloo mi léegi dañ fiy duggee boobu am na ñaari ñaari point wala ñett yu am solo yoo xam ne nii wutal ko solution dina baax dina nekk ndimbal ci màggal gi ak yi am na yeneen waaye yooyu ginnaaw kàddu yooyu nag xam ngeen ni Touba ci kanam képp ku wax ci wàllum ndox ci dëkk bu sel bi Touba da nga tudd Touba ci kanam tax na ñoo tamit kii di Abdou Fatah Guèye feggow Mame Thierno ak délégation bu takk bi ñu àndal jël seen matuwaay ngir fas yéene rek lépp luñ ci wàllu jafe-jafe ci mën ci saafa ñu taxaw ci waaye nag ñu ànd tamit fegg ñi nga xamante ñoo di waa waa xam ngeen ni tamit directeur bi nga xam ne moo jiite lépp ci wàllu ci chantier yi nga xam ne liggéey ci wàllu euh, neuf raisons ci wàllu ONAS ñëw na tamit ànd ak waa Diourbel ak waa fekk fi Bamba bu nekk fii ci Touba ñoom ñëpp te muy bu takk boo xam ne ñëw nañ ànd ak maire bu Touba ci njiitu Serigne Cheikh Abdou Serigne Moussa Moussa àll ak Serigne Moxlo ak ne ñooy liggéey bi ñoom ñëpp taxaw ngir fas yéene rek saytu jafe-jafe yi nga xam ne moo jëm ci wàllu ndox mi waaye tam xam ngeen ci Darou Khoudoss nag Promoville jafe ay ne fa ay jafe-jafe yoo na tey jii desuwaat nañ fa muy bi nga xamante ne moo doon génn ndox mi dem ci askanu fi ñuy wax quartier Touba Taïf ak Nasro dañ dund jafe-jafe yu metti lool jafe-jafe yooyu nag ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum ñi di waa ONAS ànd nañ ak Touba ci kanam ak maire bi ngir fas yéene ci indi ay saafara ren ji incha allah waaye tamit yenn barab yi nga xam gis nañ ne des na ci taxaw ngir ko saafara lépp daal jël nañ ci ay matuwaay maire bu Touba taxaw ànd ko ONAS ak Touba ca kanam ngir saafara jafe-jafe ba askan yu mën a dellusiwaat ci màggalu jàmm waan tamit nekk seeni i kër lum taw taw ñu ma fa yéene aji ëpp ci askan wi mën a dee nga ci seen jàmm loolu nag la maire bu fas yéene ànd ko ak Touba ci kanam ànd ko waa ONAS jërë ngeen jëf mbokk yi ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp seen mbokk mbok mbokk yi wax faal Mbaye